élection yi mën naa nax ku nekk. ah oui non que élection yi yéen ñi nekk ay observateur ak ñun ñuy def politique élection yi ñun ñëpp la bett te dinaa wax ci anam bu mu ñu bettee. ñëpp la bett vous pensez waaw je vais vous dire pourquoi. élection yi dañoo embarqué débarqué ñu dañoo embarqué ci processus bu normal. Mm-hmm. ñëpp à date ñu dajale seeni i dem déposé ci conseil constitutionnel. Mhm. ñëpp war a dem élection présidentielle le vingt cinq. février février. Mhm. président bi ni moom nekkul candidat moom mu am candidat. Mhm. yeneen candidat yi préparé wu pour dem ci ay élection yu libre transparente ñu dem ba ci ca cëppaandaw ga ñu arrêté processus bi. fekk nañ ñu am na ñu bari defoon ay dépenses et cetera ñu dagg processus bi. xamatuñu sax kale kañ na ni dem élection présidentielle loolu am na fi wala amu fi. am na fi président de la république bi nga xamante ni moo waral coow lépp vous imaginez en 2007 su Ablaye Wade xaaroon ba biir campagne électorale mu génne Idriss Seck kaso Idriss Seck du ko gagné premier tour mais président bi nga xam ne moo jël parti politique jël ña koy incarné noot leen jël dugal ci kaso bi. créer situation boo xam ne amul mbooloo mooy dem ci Sénégal ci six mois yi weesu te doo fa dégg baatu sonkoo namm naa la moom mu créer situation boobu président boobu moo dem ba élection yi ñu mal ko mu dàq élection yi lan la ci réussir ci dàq élection yi génne Ousmane sonk ci kaso bi bu mu woon dugg génne Diomaye Faye ci kaso bi mu waroon dugg en pleine campagne électorale voté loi d'amnistie waaw mais mu mel ni moom sax directeur campagne coalition Diomaye ak Sonko la. ndax le fait que non ci doxalin c'est-à-dire que loolu laa wax xam nga dama ni déséquilibre bi am mais parti politique yi ñépp a ko yëgandoo ñépp ah, parce que non non c'est-à-dire bi mooy euh, li may wax li may wax moo tax man la. ñun observateur yéen observateurs yi ak ñun ñu def part bu nu bu nu ko rusoo waxante xam nga dëgg gi aussi da nga koy boo bëggee régler benn problème da ngay wax dëgg bi. après ñu jàll ci leneen. waaw qu'est-ce qui s'est passé. dem nan ba ci ba kenn amatul woon sax même élection yi même campagne bi dem nan looy dem campagne yaa ngi jàpp ni sax ak recours yu ñu doon dugal ak kii campagne bi sax mën na noo bañ a egg ci ay élection mais bi campagne bi démarré ñun la pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñu dem campagne boo xam ne est-ce que mat na 15 jours ñëpp tënku ci booba suñu yitte yëpp nekkatul nekk président de la république mais suñu yitte mooy Sénégal nekk ci jàmm ñu génn ci guute gi ñu nekk. non c'est-à-dire que du ñun dama ne sénégalais yëpp toute obédience confondue kenn amatul woon yitte. wax ay election li nga doon wax mooy ñun lii ñu nekk giraawaale gii ñu Macky Sall dugal mais nan la def ba réew mi génn si ci jàmm. génn ci mooy dem élection. waaw non dama ni xam nga ci xamoo élection yi kañ la naa la ba ci campagne électorale bi kenn jàppale woon ni sax élection dina am à la veille. waaw d'accord à la veille du vote. Mhm. ñu ngi doon suspendre ci décision conseil constitutionnel élection yi campagne bi pré campagne bi. lu bare ba ca dépôt parenager ba ca liste bi conseil constitutionnel génne dafa am ay entorse yu baree baree bare yu ñu def ci processus électoral bi mais loolu ala kulli àll njeexital gaa lan la il faut mu am ñenn ñu mu favoriser il faut mu am ñenn ñu mu xañ